به وجود قلبه بهر سخاني يا لبر به baax a baax tey dellu di jaajëfal Serigne Sam Mbaye ci yóbbal bu am solo boobu nga xamante ni daal koy indil ni ki tey di ñaan suñu borom rek daal di euh, ñu ko bi dañuy ànd ak yéen ci pàcc ñaareel bi daal di leen moom moo di deuxième vague bi nga xamante ni booba tey ñoo ngi koy jaabaat jonne ci réew mi muy Covid 19 bi ak kaa takku yi nga xamante si noonee lay daal di yokku mu mel ni yéene kaay bi la mu di fësal rek euh, ci réew mi ni ki démb rek daal di nañu nemmeeku lu tolloo ku juróom benn doomu yoo xamante ni si jot nañoo ñàkk seen bakkan fekk si fu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan yéene kaay bi di ñu xamal ni waxtu wi rek ci diirub ñaari fan daal dinañuy am luy tolloo ku fukki doomu aadama yoo xamante ne si ñàkk na seen bakkan mu mel ni leneen li nga xamante si ëttu yéenekaay bi daal dina koy xaatim fësal ko ci xëtam bu njëkk eh, di ñu xamal ne rek bu loola jàllee rek am na beneen wax joo xamante ne si rek bi moom moo di kaay yi commencé naa eh, ni ña ngi ko mooy lycée Samsi Aydara bu nekk Vélingara foofu rek la ñu daal di nemmeeku benn tout tànk boo xamante si rek moom daal dinay amee doomu jàngoro névrologue lu mel ni yéenekaay bi di ñu xamante rek tiitaange gi nga xamante ni doon nañ ko tiitu moom moo di kaay yi daal wàcc si ba ci lekkool yi loolee day mel ni daal nay far sax daal tàmbali ni ki démb rek eh, gi nga xamante ni si nemmeeku nañ ko ca gajaga mu mel ni yéenekaay bi di xamante ni eh, tiitaange ak ragal rek mu ngay woy ci askanu ba tey ni ki weekend bi ba tey ak lakk gaz la goo xamante ne si mu ngay woy di tàkk eh, te ba tey waa Sénégal amuñu benn matukaay yoo xamante ne si dinañ ko mën a fay mu mel ni loolee sax moom moo tax euh, kii di Abdou Karim sàll daal di fay wàccoon ngir di defal askan bi ca tiitaange gooju waaye ba tey rek ñi ngi di xam ne ni lakk ga ma ngay woy di tàkk ba tey euh, ginnaaw bi ñu tàbbi ci ëttu yéenekaay bii di source a donte ni kaay yaa ngi ci réew mi ko ñuy wax ci deuxième vague mbir ma di gën a yokku mu mel ni loolee askanu Sénégal sax daal di ñu koy faale na ci ji jamono rek ñi ngi organiser seen tànn biir ak seen i génteek seeni i mariage ba ci seen i dëj mu mel ni yéenekaay bi di xam rek ne lu jëm ci wàllum rassemblement moom amul lenn loo xamante ne si rek daal di nañu koy wàññi ni démb rek daal di nañuy gis benn cérémonie familiale bu mag boo xamante ne si eh, ñoo ko daal di gisee ca côté Cap mu mel ni bi noonee rek la ko daal di xamle ci xatam bu njëkk eh, ginnaaw bi tamit daal di nay amal beneen tànn biir boo xamante ne si dañ ko daal di organiser fële ca Kër Massar mu mel ni yéenekaay bi la mu daal di gis ca loolee moom itamit mbooloo mu takku daal dina fay daje waaye ca Thiès tamit ñu daal fay gis benn foire boobu sax nit ñaa dugg ko génn te amul benn mesure barrière yi nga xamante si teg nañ ko ñu daal di koy respecté mu mel ni ca loolee rek la yéenekaay bi daal di xëy rek fësal ko ci xatam bu njëkk ginnaaw bi tamit mu daal di àddu ci lu tollu 619 milliards yi nga xamante ni si ay dette la yoo xamante a tamit yéenekaay bi bokk na ci li mu daal di xëy xaatim ci xatam bu njëkk ñu tàbbi ci ëttu yéenekaay bi di l'observateur moom i tamit mu daal di dikkaate ci corona ak cas yi nga xamante ni moom la ñu daal di nemmeeku ci biir réew mi loolee sax daal di nay tax Abdoulaye Diouf Sarr moom daal di yëkkati ay kaddu rekk di xam ne ni euh, deuxième vague bi ñu daal di nekk moom moo gën a garaaw rek première vague bi nga xamante ne si moom la ñu daal di génn waaye tamit ëttu yéenekaay bi di l'observateur di ñu xamal ne rek ni feebar bi moom commencé naa dugg ci yi lycée Samsidi ba nekk ca Vélingara moom daal dinañu fay nemmeeku niki démb rek seen cas njëkk ñu daal di ko fay enregistré mu mel ni bi li ñu xamal rek ni eh, bi tamit leneen di xëy rek daal di addu jëm ci li nga xamante ne si mooy l'esclavage sexuel mu mel ni ca loolee rek la daal di gis ca Kédougou ne dafa am ay tout tànk yoo xamante ne si dañ leen di jaay toll ci benn million ba ñaari million mu mel ni ca noonee rek bokk na ci li nga xamante ni ëttu bi di la l'observateur daal di koy bind ci xëtam bu njëkk niki noonu tamit mu daal di dikkaat ci lakk gi nga xamante ne si euh, daal di nañu koy nemmeeku ca ngaja ga mu ni ba tey tamit yéenikaay bi di xam ne rek ni lakk gaa ngay di tàkk euh, ginnaaw bi nga xamante ne si ministre bi daal dina fay egg sax wala boog ginnaaw ki nga xamante ne si Abdou Karim Sall daal dina fay egg euh, ngir daal di defal askan wi ci tiitaange gi nga xamante ne si jamono ji ñu koy dund niki ci weekend bi ba léegi mu mel ni loolee tamit yéenikaay bi rek daal dina xëy bokk ca la nga xamante ne si xaatim na ko ci xëtam bu njëkk ñu tàbbi ak yéen ci ëttu yéenekaay bii di Le Soleil mu mel ni nataalu kii di Didier Raoult rek la fa daal di fësal mu daal di fay toog di expliquer ak daal di addu euh, jëm ci Covid 19 bi la mu daal di xam ne ca mbir moom jamono ji temb rek moom moo de Sénégal gisaguñ fi yenn yoo xamante ne si rek euh, jar na tiitaange suñu ko comparé ak ya nga xamante ne si moom moo daal di nekk ci bitim réew mu mel ni moom di Raoult rek daal di nay addu ca loolu waaye leneen tamit li nga xamante ni dénk na ko ëttu yéenekaay bi di Le Soleil muy xam ne rek ni docteur Mbuuba ak docteur Soxna moom euh, jamono ji bu nekkoon conseil tamit li ñuy conseil ministre bi mu mel ni mënu faa def nee na lu daal di passé loolu loolu tamit bokk na ca la nga xamante ne si rek euh, daal dina koy addu rek ci ëttu yéenekaay bi di di Soleil leneen la mu ca daal di teg rek laata muy daaneel ay kàddoom moom di jërawul moo di euh, ma ngi fay xamle rek projet yi nga xamante ne si daal dina koy am fii nga xamante ni moom moo di Sénégal mu mel ni loolee tamit yéen ëttu yéenekaay bi di la Soleil daal dina koy fësal ñu jóge ci loolu daal di tàbbi ci ëttu yéenekaay yéenekaay bi di Vox Pop mu mel ni daal dinay dikkaat moom itamit desandi ci mbas mi la mu daal di gis rek moom moo di deuxième vague bi fi mu toll rek benn record la ko daal di jàppee ginnaaw niki démb ba ñu amee lu toll ci juróom benn doomu aadama yoo xamante ne si ñàkk nag seen bakkan ci diiru 24 heures mu mel ni loolee sax moo daal di tax jamono ji tembe ñu daal am lu toll fukk ak ay ñeenti doomu aadama yoo xamante ne si daal di nañuy faatu rek ci diirub ñetti fan ñu daal di jóge ci wàllum covid 19 daal di tàbbiwaat ci leneen mu ci Vox Pop daal di day addu rek euh, jëm ci campagne bi ak mbay mi nga xamante ne si daal di nañ koy bay ni ki ren ki Sénégal mu daal di tombeek jamono joo xamante ne si ju xaw a doy waar mu mel ni loolee sax bokk na ci xayma yi nga xamante ne si ni ki démb rek euh, kii di Moussa de di ministre de l'agricole moom daal dina koy def rek di xam ne ni ay résultat yu baax la dal di am euh, jëmale ci wàllu mbay mi donte ni jamono ji ñu nekk sax nekkoon na jamono ju doy waar waaye terewutu loolee daal dinay baax ni daal dinañu xamal ci xëttu yéenekaay bi lu jëm rek euh, ci wàllum ay gerte rek ñoo ngi ci daal di am lu tolloog 1,8 million loolee la ko daal di xamle ci xëttu yéenekaay bi waaye tamit euh, àdduna ca mbir moomu di xamle rek lu jëm ci mbay mi ñu daal di def rek nekk na mbay moo xamante ne si lu baax ci Sénégal euh, ginnaaw bi leneen ci li nga xamante ne si rek moom moo di bi di Vox Pop daal di na ci àddu di xamle rek ni Sénégal jamono ji rek daal di nay génne lu toll ci genn wàll milliard rek ngir daal koy jëm ci de ay contraceptif mu mel ni ca loolee rek ëttu yéenekaay bi di Vox Pop moom itamit daal dina ci desandi euh, ginnaaw bi ñu ànd ak yéen ci ëttu yéenekaay bi di laas mu daal di dikkaat xëy fësal nataalu président Macky Sall mu mel ni la mu daal di wax rek moom moo di poste premier ministre bi nga xamante ni daal dinañ koy supprimer ci réew mi mu mel ni loolee rek bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne si jamono ji ñoo koy daal di dund ci réew mi ginnaaw ba tamit laas daal dinay addu jëmale ci campagne gerte gi nga xamante ni si daal dinay am ci réew mi mu mel ni loolee tamit ay coow daal dina dafay am ginnaaw prix bi nga xamante di jaaykatu euh, ba tëdd ca naaj ba rek xam ne ni loolee duñu ko daal di def benn yoon loolee sax mooy daal di tax ñu daal di tàbbiwaat ci ëttu yéenekaay bi di la témoin mu mel ni ci campagne yu gerte boobu rek la daal di des ak prix yi nga xamante ne si fixé woon nañ ko mu mel ni jaaykatu gerte yi moom dañoo daal di lànk ca mbir moomu rek di xam ne ni prix bi nga xamante si ministre bi daal dina ko koy teg loolee nekkul benn yoon boo xamante ni si da leen daal di arrangé mu mel ne ca plateforme bi nga xamante ni tegoon nañ ko ngir lu jëm ci lépp loo xamante ni day daal di aju ci wàllum njaayum gerte ba ñu fa daal di dugalee prix yooyu rek dañu daal di xam ne ne euh, lu jëm ci campagne bi moom ren bi soo wattuwul rek dañ koy daal di boycott ndax lañ ca daal di tekk ak ñoom la ñu yore seen marchandise ngir ñu jaayee ko loolu du nekk benn yoon loo xamante ni si da leen daal di arrangé euh, ñu daal di ànd ak yéen ci ëttu yéenekaay bi di réew mi quotidien moom itamit mu daal di dikkaat

ci jamono ji ak président Macky Sall fi mu taxaw temm mu mel ni ginnaaw deuxième vague bi nga xamante ni ñoo ngi koy daal di wax ci réew mi ëttu yéenekaay bi rek di ñu xamal ne euh, loolee dàqul benn yoon président Macky Sall daal di tegaat lu jëm ci état d'urgence waaye nag da koy daal di boole ak beneen état d'urgence boo xamante ni si rek day ànd ak moom ni ki ëttu yéenekaay bi di réew mi quotidien tamit daal di ñëwaat ci benn révélation rek ci benn ti euh, silencieux boo xamante ni daal di nay am mu mel ni loolee tamit bokk na ci li nga xamante ni si réew mi quotidien daal dina koy fës fësal niki tey ci xëtam bu njëkk euh, ginnaaw bi ñu ànd ak yéen ci enquête moom nag mu daal di tabbiwaat tamit ci wàllum politique daal di fësal nataalu ki nga xamante ni moom moo di Mimi Touré mu mel ni la mu daal di gis rek ko daal di trahir ginnaaw bi nga xamante ni si daal di nay génn mu mel ni ëttu yéenekaay bi daal di nay gis rek ni àndandoom yi nga xamante ni amoon nañ ko ñooñee ñëpp dafa mel ni jamono ji temm rek dañ ko daal di desandi daal di koy wan ginnaaw mu mel ni moom Mimi Touré rek daal daal di nekk moom dong ne comm rek amul kenn koo xamante ne si daal dina koy ànd mu mel ne Abdoul Mbaye moom it daal dina yëkkati ay kàddu rek jëmale ca wàllum googu ginnaaw bi nga xamante ni ëttu yéenekaay bi di enquête fësal na ko niki ci xëtam bu njëkk ñu daal di fay gisaat tamit ci enquête mu ëttu yéenekaay bi di enquête mu daal di fësalaat nataalu kii di Abdoulaye Diouf Sarr mu takk fa maskam waaye di xam ne lu jëm ci deuxième vague bi rek ni première vague bi ñu génn rek deuxième vague bi soo wëttuwul moo ko a daal di tar ndax askanu Sénégal ak a dugg ak doomu jàngoro bi ba tëjatul ko fenn mu mel ni loolee rek soo wëttu wëttu Abdoulaye Diouf Sarr dafa daal di gis ni rek jéeye jiñ nar a jëm moom moo ñu koy daal di yóbbu ginnaaw bi ñu daal di waxaat ci beneen tubaab ginnaaw bi ñu àddoo ba pare moom nag la mu daal di fësal rek moom moo di benn tubaab di doomu Belgique bi nga xamante ne si boroom këram moom moo ko daal di faatoon niki ci jamonoy màggalu Touba mu mel ni moom borom këram boobu sax daal di nay mujj avoué ni moom moo ko daal di faat la tax sax mu daal di koy faat la daal di wax moom moo di dafa daal di gis rek ni biir waaye loolee moom dafa daal di wax rek ni tayu ko mu mel ni ëttu yéenekaay bi di ñu xamal ni Joseph Samina moom xamante ni daal di nañ koy faat mu mel ni borom këram mage woon na ko lu toll ci juróom-ñaar fukki at ginnaaw boo mu amee 72 ans mu mel ni moom mi ngi amoon ci lu toll ci ñeent fukki at mu mel ni ëttu yéenekaay bi di libération ginnaaw enquête yi nga xamante ne si daal di nañu koy fësal mu mel ni la mu wone rek wuute na ak moom la nga xamante ne si daal di na koy wax mu mel ni ci jamonoy màggal Tuuba daal la ko daal di faat rek daal di koy dem suuli ci benn àll bu nekk Thiès bu mel ni boobee rek dafa daal di gis ni dëkk bi dafa daal di weetu moo tax mu daal di profité ci loolu ni bu mu ko faatee ak ba mu koy denc yére yi répp la daal di boole rek daal di koy denc niki noonu ñu jeexalee ko ak ëttu yéenekaay bi di tribune mu mel ni coow li nga xamante ni si nemmeeku woon nañ ko ca Casamance di ñetti doomu aadama yoo xamante ni si ay tout tànk la dañoo daal di jékki-jékki woon ni mes kenn gisu leen fenn mu mel ni ginnaaw enquête bi nga xamante ni si bi doon na ko def daal di na fay jàpp lu tollook ñaari nit yi nga xamante ni si ñett lañ woon mu mel ni armée bi daal di nay gis ñaari nit ci ñoom waaye bañ leen di gis dañ leen a fekk rek ñu daal di leen di rey ba pare mu mel ni seen i néew sax dafa tàmbali woon di yàqu loolee waxtu wi temb ëttu yéenekaay bi di Tribune di ñu xamal ni commencé naa jur coow coow fële nga xamante ni sii rek moom moo di Casamance dal di yokk ca coow lañ fa baaxoo di xamee saa su nekk mu mel ni soxna Bintu loolu rek la ñu daal di nemmeeku ni ko tey euh, ci talaata ji ci li nga xamante ne si ëttu yéenekaay yi daal dinañuy xëy xaatim ko ci seeni i xët yi njëkk yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre wala boog décembre atum 2020 xam naa dama bëgg a ayeeraat at mi ah dañ koo bëgg a arriéraat lii dañ ko dul ñun nangu. waaye est-ce que duñ ko pousse rek 21 benn benn yoon ñu jéem a xool ba xam est que sax du sax tane. li ci 2000 moom vingt bi yéeme na torop. doy na waar doy na waar li ci des ci ay jours na dem ak jàmm. na dem ak jàmm ak salaam. te ren moom bëgguma kenn ku naan bu daaw bu ren nare xaw ma déwén nare ndax yàlla mel ni yàlla mel ni daaw naa wax <laughs> mu ngi noonu kon soxna Amina ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci rubrique bu am solo boobu nga xam ne rek